jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di fi leen daan nuyoo tey nag ñoo ngi fii ci Grand Dakar seet si ki nga xamante ni mooy Boy Dakar bëgg a waxtaan ak moom ci làmb ndax gis nañ ne xale boo xamante ni am na jom am na fulla te saa bu làmb amee day jof day def lépp li nga xamante woon na koo def mais ñu gis saison bi tijjeegul mais daanaka combat yu bari taxaw mais gis ñu gis palmarès bi mu def def 10 combats 10 victoires mais ba léegi amul combat tey nag ñu bëgg koo seet si bëgg waxtaan ak moom lu war loolu ak euh, la moo tax jëlagul avance ak CNG bi gis nañ ni mu jot a demee changement am na fi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni xaj na ci émission bi tey ñu bëgg waxtaan ak moom ci loolu xanaa di ko bàyyi mu nuyoo Boy Dakar nuyu naa la. maa lay fay Wëz gannaaw ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant euh, sama staff bu baax a baax di jiital nuyoo bi si Mout Sagna am sama magul bopp la depuis mu jaabee ba léegi bàyyiwuñu ku si mel ni sama jumeau Ndiaga Lamine Naar Aba di bëggee waa fans club Boy Dakar bi yëpp bàyyiwuma kenn waa Saalum waa Kaolack ma Madiabel Sangel Caawaanu Pande Sader laa Maram Njawra Alkaati waa Waalo tamit maa leen di bëggee bu baax a baax a baax waaw waa Gànket waa waa Jokkul waaw maa ngi leen di siyaar bu baax a baax waaw waa Casamance bàyyiwuma leen tamit jàppoon nañ ci combat bu baax a baax waaw waa Gambie tamit aussi tamit jàppoon nañ ci combat bi vraiment maa ngi bëggee ñëpp bàyyiwuma kenn. waaw ku si mel ni euh, grand Ndiogou Ba ambassade France ak Ndiogou stade Demba Diop maa ngi koy bëggee bu baax ku si mel ni sama yaay Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme de la famille et protection des enfants maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak euh, waa Gilet Orange tamit ku si mel ni président euh, Jules Sognane maa ngi koy ziar bu baax a baax ak Diarra Bousso waaw maa ngi ziar ñëpp daal bàyyiwuma kenn waaw ak sama doom nday Fallou maa ngi koy bëggee. <laughs> ñu koy nuyu bu baax a baax ñu gis la wax la nga nuyoo rek lii la gaa yi di wax neen booy Dakar dafa bëri musique nuyoo nga nuyu waa Gànket waa Waalo waa Casamance lan la nuyoo doo nga lim fi dëkk yooyu noonu yëpp. waaw parce que ndeysaan Dakar bi bu ñu nekk nii yàlla dafa dafa boole ñu ñu bëri jógee foofu noonu ñu dajee fii nii ñu buggal ma seen bopp man tam ma bugg leen waaw moo tax tey jii nii su may su may nuyoo foog ma nuyu leen parce que tamit toujours dañuy jàpp sama combat di ma soutenir ma jàppale si boor bu nekk waaw. loolu moo tax ma leen di siyaar. pour ñi nga xamante ne dañuy seetaan wasaare yaakaar naa c'est la première fois ñoo seet ki nga xamante ne mooy Boy Dakar suñu bëggoon xam sa palmarès ak sa jaar jaar nga ñëmal ñëwal ma ci la moo la dugal ci làmb ndax gis nañ gox bi nga nekk football dox na fi ak leneen ak leneen man la moo la dugal ci làmb. waaw làmb lenn rek moom si duggal mooy dama demoon jàngi Kaolack bu may jàngi foofu noonu ma topp sama benn grand bu ñuy wax Sadam ma koy toogal cumbukaay ñuy dem di dem di dem ba virusu làmb dugg ma si laa dem ba commencé di mbapat léegi nag làmb foofu la ma duggee ma ñëw sama papa mu ne ma bu ma ñibbisee vacances fii sama papa mu ne ma lu tax nga bañ a jàng ma ne ko damaa bëgg a bëree mu ne ma bëri métti na de ma ne ko ah affaire de góor la mu ne ma dañuy dóoree de ma ne ko ku dóor ku ma dóor ma fayu parce que dañoo am loxo ma am loxo waaw sama premier licence bu muy euh, teew sama papa euh, loolu nag 2006 2007 yooyu noonu laay soog a am licence noonu pour du pour dem Mbapati waaw léegi nag sam papa téye euh, licence bi jooy rongo ñoom toq si licence bi ma xam ne man ah. waaw sas nañ ma daal waaw sas nañ ma moo tax may góorgóorlu nii ba léegi waaw gars yi nag topp sama gannaaw di ma poussé maa leen di sant. est-ce waaw jël naa ci lu nekk jël naa ci xaalis jël naa ci nag waaw. bëri na tuuti woon 2006. defe naa bu ñu ko 2006 boobaa ak léegi yàgg na est ce que boobu tuuti woo woon ci bëre. waaw tuuti woon naa trop mais saa yu ma duggee si ponkal yi dama leen di jaaxal su ma duggee si ponkal yi dama leen di jaaxal nag mayum yàlla la du si du sama njàmbaar wala du sama leen mayum yàlla la yàlla def. Euh, non non <laughs> man a mystique. ban moment nga xalaat man mii kat war naa dugg lutte avec frappe. lutte non man nag bu may dugg si làmb rek laa man loolu mooy sama objectif. bëre dóor. donte maa ngi mbapat mais après dama toog ma ne il faut ma déglu bëre dóor parce que moment yooyu noonu maa ngi def aar di jéem a jàng nu ñuy protéger nu ñuy defee lépp léegi nag si laa am fitu dugg si làmp arène waaw. sa premier combat nga bëgg ko ak kan. maa ngi orka stade Ndiarème bu Guédiawaye bi waaw. sëñ Modou Niang ko tëggoon. sëñ Modou Niang moo ñaata combat nga am. am naa dix combats dix victoire. waaw. nga am 10 combats 10 victoires mais nga ñëw dugg ci euh, tour boo xamante ni maanaam mën naa ne boo yi nga bëreel ñëpp mën a bëri ñëpp a weex ba su ma ko defe naa ne mënuñu fi nekk sax di lim ñëpp mais su ma ñëwee ba ci ki nga xamante ni mooy Guiro Séras ngeen bëri combat bu métti combat bu yàgg nga desante ak booyu ës ñu gis na chaque jour da ngay bëri ak ñoom combat yu métti loo tax sa combat du yomb. waaw sama combat lu tax du yomb mooy su sama adversaire des fois dañuy bëri man xel ñaar taxaw action yu bëri maa koy def. te tamit xel ñaar mooy lan dañ la dul ñeme wala dañ du jël initiative bëri. duñ jël initiative bëri parce que tey jii soo demee ba suñu contrat da nga war a taxaw dëggal sa bopp ñu def full ak fayda dem suñu yoon parce que tey jii nii Guiro Seras amaana am na ñoo xam ne dañuy dagg seen yiite ñëw ah tey dama war a dem seeti Guiro seetaani Guiro Seras tey de maa ngi war a dem seetaani Boy Dakar ndax fulla bu muy def ndax fayda bu muy def kon tey jii noonu bul nga ñëw ba foofu ngay nga retardal làmb ji dafa war a neex foog taxaw leen jàpp bëre làmb ju du neex te tamit amateur duñu kontaan. ngeen bu yàgg nga daan ko bi ko daanee nga jógee ci am kan. Mhm. maa am su ma juumul mag xaw ma. waaw amee te si tamit rôle rôle Giro Seras def tamit. nangu est-ce que est bi mooy bari ba duñ la ñeme wala boog dañ leen di wax lu loo xamante ne day day day dugg seen noppee bu ñëwee du nangoo bëri dañuy téye seen bopp. ah amaan tamit leen koy wax parce que tamit seen coach yi xamante nañ bu baax. amaana lu leen conseil la waaw ndax loolu laa ko jàpp amaana seen coach ñoo leen wax def leen li def leen ñu koy def. mais est-ce que tamit doo wàññi parce que gis nañ la dañoo da nga jël xale boo xam te ñëpp dañ ko fee bàyyi. nga ñëw mais mu ñëw moom tamit noonu la def nangul ba ngeen ba amateur di leen sànni ay ay fleur di wax taxaw leen ngeen bëre est que tamit doo wàññi mystique bi. non man awma mystique yàllaa fi ne rek. wallaay sama papa ak sama yaay ñoo ma ñaanal sama grand Moussa Niane nekk sama gannaaw sama gaay loolu la rek mais du dara. lan moo taxoon nga jël Tigo parce que Tigo su ma juum ñëpp fi ñëpp ko fi bàyyi woon nga jël ko lan moo taxoon choix bi nga jël Tigo. waaw Tigo dafa am benn moment boo xamante ne dafa doon ra euh, raatale gars fekk man sax bëreegu ma sama cinquième combat ma ne kii dama ko war a jël freiné ko. nekkoon na sa xel kon. nekkoon na sama xel après benn moment fàtte woon naa ko nag ko léegi nag mu Pape bu ñu bëree sama xel si la ñëwaat ci moom ma ne kii il faut ma jël daan ko léegi nag yàlla dem dogal suñu diggante maak moom yàlla may ma ci ndam. bi nga yëgee nag sa combat taxaw na tombé nga bëggoon bëre ak moom bi nga yëgee ne combat bi taxaw na lan nga ñëw njëkk a wax sa xel. dama koy daan te dama programme nu ma koy daane. dama nu ma ko programme noonu la amee. ni nga jàppee tànk bi. nu ma ko préparé noonu la amee. loo liggéey la wala loo fu ñu la waxoon ne fi nga ko mën a jaar la. non man sama calcul bopp laa yor man avant tout d'abord man sama calcul bopp laa yor. comme fi nga fi nga ko jàpp dafa sooy trop ci suuf ponkal mu léegi nga taxaw nga sëgg ba suuf tànk bi jëli mhm. technique la rek moo tax làmb ñu ne il faut ñu jàng ko dañ koy tarbiyu man nag dama yàgg a bëre ba sama nopp yàqu di bëri di dem géej di ànd ak ku ne ànd ak séeréer yi sama mboqu séeréer tam maa leen nuyu bu baax a baax waaw chaque jour ñoo nekk vingt 24 heures sur 24 ñoom Faly Sitor John Waly fay Biram Amady gars yi yëpp bàyyiwuma kenn waaw ñoom Sadio ñoom Njaga sama rak waaw bàyyiwuma kenn ñun ñëpp toujours dañ ma jàppale di ma soutenir chaque jour ñooy nekk géej di contact tout le temps moo tax toujours da ngay gën a yeew di évoluer wu waaw. Kaagu yaakaar naa mën nañoo dem xooli combat bi nga xamante ni mooy Tigo ak Boy Dakar te dellusiwaat. Tigo bu xasee ma doo ko mu daanu moom mosul doo kenn mu daanu. Habib baa ngi wax ak ñoo mbokk yi li làmb nangu ak li làmb bañ Boy Dakar. moo ñu woon ginnaaw mbokk yi Habib Ba nga jox avertissement moom Boy Dakar nee na fa am lu mu sotti Tigo Habib Ba ngeen wax li làmb nangu ak li làmb bañ Habib Ba ngi wax ak ñaari mbër yi Adama grand combat baa ngi noonu eh Adama ba fàtte woo gàmmu waalo bi Adama ba fàtte woo gàmmu waalo bi grand combat baa ngi noonu. Habib baa ngi wax ak ñoom moo ngi laaj ba xam pare nga Djibson production woo ñu fii le premier mars il vingt heures dix neuf. Tigo lu muy def nii ah au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit loolu la Tigo def léegi Tigo loolu la def léegi Tigo xaritu yaayam ak Boy Dakar ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar. Tigo Boy Dakar Tigo Boy Dakar ñoo ngi liwaatoo ñoom ñaar Tigo Boy Dakar jege yaantoo nañu jege yaantoo ragal naa dinañ jàppante ñoom ñaar. cokkaat na léegi moom Boy Dakar moo ngi koy accéléré Boy Dakar accéléré Tigo. <laughs> sàmbal ma sa yi sàmbal ma sa yi waxoon naa ko sa Tigo lu def nii. Boy Dakar Tigo eh, xale yaa ngi bëre laa ilaaha illallaah eh, Tigo daw na jël ko Boy Dakar daw na jël Tigo Tigo rasu rasu rasu bu amul fenn daw faax ko jàppante Tigo ngi di wolu sew ci suuf bonus Tigo ngi dugal ay bonus rokas Tigo ngi noonu Tigo Boy Dakar baa ko faax moom Tigo baa ko faax booy xool mbokk yi Tigo jàppul Boy Dakar ngi rokas ci suuf ku nekk sa benn loxo am na ngemb Tigo am benn loxo ci ngemb Boy Dakar am benn loxo ci ngemb ñoo ngi jàppante ñoom ñaar su li tànk na fi bu ma gisee lii na ko laa eh, am na fa stade Iba am na fa jàppante nañ bàyyante waat Boy Dakar Tigo xaytu yaayam eh, lamb ji neex na Boy Dakar Tigo lamb ji mënu yomb ay xale lañ abid atana Boy Dakar dem na Ardo Boy Dakar dem na Ardo Boy Dakar dem na demal Boy Dakar bañ demal. Boy Dakar Tigo Boy Dakar moo ñëwoon ginnaaw Tigo lañ jàkkaar lool. Adama ji neex na. Djibson production moo fi woo ñoo ngi liwaatoo ñoom ñaar ci ko Boy Dakar sànni na léegi waaye dalul. ah Tigo door na léegi eh Boy Dakar jël na tànk ba. fam ko jàpp sori na moom Boy Dakar baadu eh Tigo Tigo li may daa ëpp Boy Dakar Tigo lii lan la lii lan na ko gàtt appui daan na ko daan na ko Boy Dakar daan na ko Boy Dakar daan na ko Boy Dakar daan na Tigo Boy Dakar daan na Tigo Boy Dakar daan na Tigo Boy de buur buur buur lu am. maa ne am na. xel xamu ko Boy Dakar daan na Tigo Boy Dakar daan na Tigo Boy Dakar daan gis ngeen noonu la demee Tigo Boy Dakar combat bi yàgg na mais nekk na combat boo xamante ni combat espoir la woon nekk na combat boo xamante ni combat bu neexoon la ñu jël kii nag kii di Boy dakaar daan ci Tigo bi nga fa jógee boobaa ak léegi. dégguñ sa combat déggoon nañ sa combat yaak Petit mais boobu ak léegi mënagoo am kombaa lan la. waaw maag Tigo maag kii Petit taxawoon na bañ dem def jàkkaarloo mu jotoon avance su ma juumul man ma jotoon avance xam nga ñu dem ba finaliser après si la ñibbee ma teg jour boobu noonu dama génn takk sama bundu gaale bu ma yeewoo may programme comme nu ma la ko waxee sànq may programme ma ne kii de parce que man su ma jëlee su ma signé xaasee lii combat moom saye damay nekk sa lii nii si combat waaw damay nekk si combat bi nu ma yeewoo noonu ma ne may calculer kii su ma suñ jàkkaaroo nii laa ko war a daane ñu woo ma Abdou Lahad woo ma mu ne ma Tigo combat bi delloo na avance bi yooyu noonu. Petit Niang ma ne ko mu ne Petit delloo avance bi ne ko ah bon ma woo Père Diakhaté ma wax ko ma ne kon garaawul après nag ba léegi nii gars ñu ngi ut adversaire te tamit déggaguñu leen ba léegi. waaw est ce que ngi lay contacter di la nga diw wala diw amagul combat loolu yaa ngi koy dégg. waaw des fois dañu may proposer adversaire dépassé fii nii. toll nga toll nga fooy taamu adversaire naan bu wowuma ba kii bëgguma diw. waaw instant bii nii. naa ci parce que tamit bëriwul sama morom yoo xam ne def nañ dix combats dix victoire te combat bu ma jël dañuy wax booy bi lu tax mu jël combat bi booy bi kii moo ko ëpp doole moo ko ëpp physique moo ko ëpp lépp. ma ne pot ak moom après ma ñëw bëri def preuve jàll si leneen instant yi nag war na jot nag ma bëri gars yi si kaw waaw. xam naa ne ñu la fi limal nga koy bañ moom xam naa doo leen tudd fii mais ñan ñoo nekk sa xel bu dul ñooñu. waaw sama xel Alioune Seye war nañ mën a bëre waaw war nañ mën a bëre suñ ma fay xaalis sama diggante moor Mor war na mën a neex. waaw Mor Kankang mel mi fi daanu aujourd'hui. boobu ba léegi nga xam te ne moo ngi top 5. suñu suñu ma fayee xaalis booy lu ñu bëree yëpp bëreeguñu. booy bëreeguñu. billaahi booy bëreeguñu de. xam nga ne Alioune Seye màggatum làmb la Alioune Seye lu def lu ne ci làmb nga taxaw tey di ko laaj ñu ma ngaa jël avance Alioune Seye. Alioune Seye tey jii soo ko demoon laaj nga ne ko ndax mos na jël saak di dugg ci àll bi moom kese dalay lay wax mosuma ko def wala su ko defee biir dakaar fii la yem man dama jël sama saak. tàggu sama yaay tàggu sama papa ñu ñaanal ma ma dem dugg si dëkk séeréer yi jël fa drapeau ñibbi si te fii nii bëri na mbër yu bari yoo xam ne ñemewuñ ko def il faut ñu ànd ak peloton te man damay dugg benn dëkk man kese dem fa jël drapo ñibbisi waaw. mais lutte simple ak lutte avec fa bokkul xam nga loolu da ngeen taxaw ba mbapat lu yàgg mais lii benn combat la nommé lay nekk ngeen ba ku nekk dem ndax ba tax na ku ci nekk dangay ngay waaj noo mën a waajee doo ñëw ci bés bi. bu dul Alioune Seye kan kan kan kan moo nekk sa xel. waaw comme lu ma la waxee léegi ñu ma fay xaalis sama diggante moor Kankang mu ñëw ñu bëri su nekkee pare na Ada Fass su nekkee tamit combat am taxawagul mook euh, euh, booy boobu noonu. waaw pare mook Tafa Mbër ku jël avance rek na ñëw ñu bëree. parce que tamit ay génération lañu waroon nekk fi di moytu. lamb neex la waaw lamb yu neex la. waaw lamb yu neex la gars yi dañoo war a ñëw ñu bëri gars yi lu ñu wiiri wiiri yëpp dañoo war a ñëw ñu bëri loolu mooy combat yi. loolu mooy combat yi billaa wallaay. daal su ma déggee mooy booy Dakar moom pare na avance bu ñëw rek ci ci adversaire yi la ku ñëw baax na waaw. ñeneen yaa ngi xool ba xam di nga leen jëlal. xool ba xam parce que instant yi nii du ma fa sacrifier sama laay wala lu ma waroon sacrifier c'est des waaw c'est des apports waaw. ñu gis ne CNG bi Alioune fi nekkoon léegi Alioune Sarr jóge na fi noo gisee ki ñu fi teg. ak loo koy conseillé comme que ku bees dañ koy dalal loo koy wax. waaw sama papa Bira maa ngi koy nuyu au passage. xam nga ko xamante nañ bu baax on se connaît très bien daf ma doon woo appel 24 heures sur 24 moom ma yóbbu drapeau chef de l'état ma ñu nag dakaar buñ ñu demee final ñoo finaloog ñu ñoo finaloog euh, euh, kii nii Dakar Kaolack waaw ñoo finaloo mu soutenir ñu jàppale ñu mais tamit dafa am lu am. Euh, nit ñi suñ lay séentu si gaalu xaj fexeel ba bul fa dugg wala bul fa nekk waaw am na loo xamante ne ñu ngi koy xaw ma na lañ koy waxee si olof sax ñu ngi ko koy jëwee loolu noonu nag na fexe. mooy lan non loolu duñ jaruñu si egg quoi loolu noonu na fexe ba. maanaam élément Alioune la ma yegg waaw yooyu noonu yëpp na fexe nag ba bu mu ci dem wala bu mu ci nekk wóolu nañ ko yaakaar ko ba mu indi ko mu nekk président CNG. na ko teg si yoon ak ñu ko entouré ñu teg ko si yoon parce que tey jii nii mënoo dem fay sa licence ñu ne assurance da nga gis mbër bu dam damm wala mbër bu foxoj duñ la sax xool ñu la lijjanti loolu war nañ cee taxaw man fii laa gaañoon stade Demba Diop CNG nii lañ toogee di ma xool benn forate lañ jël diwal ma ko sama waa kër ñoo ma boot dem ma dem ñibbi ba léegi te dañuy dagg assurance dañuy def lépp licence lan lay njëriñ ak wàllum tamit euh, lutte simple yi nga ne ngay dëgg euh, dëgg euh, lii 1000 francs fay 1000 francs pour bëre loolu moo tax ngeen géej ma gis si mbapat yi duma ma fayal kenn ma ne damay dem bëre ji parce que dama dagg sama licence loolu moo licence bi loolu moo waral ñu dagg ko pour ñu dem bëre ji ba pare nga ne da ngay jël 1000 francs pour demaat joxe ko loolu duma ko def loolu moom suy continuer moom jeunes yëpp ay bàyyi làmb te du gis nga gaal yi gaa ngi dem tey jii nii dañoo war a encadré waat affaire yi booy ñëw toog mun a encadré seen vie. mais tant lii mu ngi am gars yi déggoowuñu pour defar viwu euh, xale yi xale yi dañuy dem te dañuy dee di lor seen parent yi seen parents di gën a sonn te loolu noonu yëpp war nañ ko éviter instant ñoom ñoo ñu war a mun a jàppale surtout ment ñun mbër yi da nga jékki kenn gis rek am na kenn keroog sama benn copain mu ne maa ngi dem si gaal su nekkee dangay dem sama copain la. nga ne ko la. ma ne ko si maam demal lekk. li ma ko wax mu toog liggéeyaat wala mu toog. ko waxee day dem soo ko waxut day dem. parce que objectif la euh, objectif am la jël jël initiative am jël décision am donc mënoo ci dara quoi parce que dañuy gis seen benn moromu mbër dem ñu bëgg a sacrifier pour dem jàppale seen parents yi tey jii ñu mbër yu bëri ñu ngi bëgg nekk fii nii jàppale seen parents yi mais genre action yu fi am lu ñu dagg mbër yi ñu dagg kii kenn xamul fa lay dugg kenn xamul loolu yëpp dafa war a jeex lépp lu ñuy def ñu teg ko ci kaw taabal ñu wax lii ak lii la. président bi sax avant ñu koy fal dañoo waroon woow membre mbëri yëpp ñu toog ñu ne dañuy voté parce que président suñ koy fal dañuy voté nekkul diw moo jékki-jékki rek nekk euh, kii mooy président loolu noonu teguwul fenn. d'accord lu ci quoi yow. d'accord dañoo war a woo mbër yi ñu def vote ñu d'accord su nekkee ñëpp ñii ñoo d'accord ñëpp euh, ñëpp ñu ñoo d'accord ñu mun nañ ko def président amul benn problème mais deux ans lañ ko euh, lañ ko jox. deux ans yoonu su fi deful preuve mun nañ mun nañ indi keneen waaw loolu moom rafetlu ma ko beneen yoon su ñuy def dara dañuy toog voté waaw ñu bàyyi kii kii lañu ñu war a indi kii lañu ñu war a indi ku xam làmb la ñu war a teg si lii bi waaw. seen xamul làmb nga bëgg a wax. maanaam tey jii nii mun na xam làmb mais dañoo jiital alal si affaire yi alal lañ si jiital loolu loolu yëpp dañ ko war a bàyyi alal bi ñu jël tegee ko ne la ñu xool aveniru xale yi. pour xale yi mun a toog defar seen réew jàppale seen parents yi ñu jël alal bi donte nag alal moo tax ñuy sacrifié wu ñun ñëpp di liggéey di daan suñu doolee mais dafa war am limite ñu xool avenir xale yi ndax gaal ñu bàyyi yéeg si gaal yi waaw suñuy voyagé ñu yéeg si avion yi moo gën nga am sa visa loolu dara daaxu ko sa parents yi seen xel dal loolu daa allah am loo xam ne mu koy conseil xale yi ñooñ góorgóorlu ñu toog ñu xool ñu encadré waat affaire yi ñu avancé combat yi jot a taxaw saison bi tijjeeku noo ko gisee ak saison bii ñu naa jëm dëtmal nii. combat yi jot a taxaw yi waaw gars yi dañ dañ doon njëkkalante pour combat yi promoteur yu bëri ñaa ngi ñaa ngi xeex corona ñoom ñuy xeex combat di njëkkalante yooyu tamit war nañ ko éviter moo tax des fois da ngay dégg diw yoral na diw xaalis diw xam nga mu indi yenn wax yu sew yi. yooyu yëpp dañ ko mel ni Papa Gasson ak ak ak Gris Bordeaux. très bien genre yooyu noonu. loolu noonu dañ ko war a éviter parce que tey jii da nga gis mbër boo xamante ne corona bi yëpp liggéeyul ku ci mel ni man waaw corona bi. doo ko bëgg bàyyi mu dem doo ko a bàyyi waaw yooyu noonu yëpp il faut ñu koy éviter te tamit mbër sooy dem ba seq ak moom xaalis na nga signé teg ko fu leer pour en parce que tamit affaire xaalis moo doy moo doon loo xamante dafa garaaw mbër yi tamit nañ am seen xel ak seen ful ak seen fayda. seen dignité tamit dignité waaw ba lépp lu ñuy def nañ ko teg fu leer. waaw su ñuy jël combat dañ ko jël si lu leer wala ñu bàyyi ba saison tijji ñu ne temps bisu temps combat yi day taxaw ñu dem waxtaan suñu waxtaanee ba pare ku nekk mun a jot sa avance si saa si mais soo tey soo waxee combat diw ak diw beneen promoteur soxla combat bi mënul ñëw fekk joxe na sa joxe nga sa kàddu ba pare te nag nit ki kàddoom rek lay sàmm lay sàmm loolu noonu nag war nañ ko éviter trop waaw ñu bàyyi ko. mbër yu mag yi tamit ñu góor góorgóorlu tamit ñoom tamit seen gannaaw lañ nekk ku si mel ni Balla Gaye sama idole Gris Bordeaux Sa Thiès yeneen gars yëpp waaw ñu gën a encadré gër a waxtaan parce que ñoom ñoo nekk si kaw ñu mun ñoo jàppale parce que ñun ñoom rek lañ yaakaar pour ñu jàppale ñu waaw. combat yi mag yi fi taxaw ban moo la ci gën a neex. Balla Gaye Gris Bordeaux revanche bi. moom nga bëggoon moom laa bëggoon. non boobu noonu Balla dafa waroon daan. Balla dafa waroon daan de. da nga bëggoon mu daan waaw combat bi leer sama sama sama mbër bi xam nga rek Balla Gaye maa ko bëggal sama boobu euh, wallaahi. Ah, moom lay dégg ndax Balla Gaye Wassare Lamb rek lay seetaan. Mhm. ku ma dëkk micro damay wax Balla Gaye mooy sama idole nëbbu ma ko nëbbu ma ko fenn mooy sama idol Balla dama war a ñëw sa gaale nag nga jàppale ma parce que jeune talent bu nekk ñaari tali xam nga waaw. te daanaka sori loo sax léegi moo ngi maris. mu ngi maris dinaa ñëw gaale nag jaar naa. waaw dellu siyaar wér waay. waaw booy Dakar nag moom sunu rakk la bu baax waaw bëgg ñu ñun ñëpp waaw ñun nag euh, grand am lañ boo xamante ne su amee combat ñun ñoo siy jàpp. waaw di ko taxaw te booba léegi nag bëri na dix combats dix victoire te booba léegi gisuñ suñu bopp si làmb ci te waroon nañ dépassé fii man loolu rek laa am loo xamante ne métti na ma si si côté am quoi waaw parce que mbër bu toll nii booy Dakar boo bëree dix combats dix victoire. war nga mën a dépasser fii parce que gars yi bëri nañ fi ay cinq combats gars yi di leen dégg si kaw mais boobu ba léegi nag loolu daal moo métti daal si carrière daal. waaw kan nga koy jox. waaw comme booy mu wax ni ay Ada Fass même Tidiane même Tidiane bu Langsar bëgg naa may ñu sens. Tidiane fay wax nga combat bu neex. Tidiane Faye war nañu mën a may sens surtout combat boobu war na mën a. <laughs> waaw war nañu mën a may chance quoi. waaw war nañu mën a may chance toll nañ foofu instant bii nii waaw surtout combat boobu noonu. waaw booy Dakar loolu war a mën a nekk la. ndaw combat technicien. waaye nga bëgg ci Tidiane yàgg na am na benn kii bu ma ñëwoon seet si bu ma bu demee foofu noonu Tidiane Faye dafa wax mu ne ma xaw ma sax koy booy Dakar ma ne ko bis boo jëlee combat bi da nga xam kuy booy Dakar. Tidiane fay jëlal combat bi ne ay jeune talent la ñu nekk fii nii si gox bi te ñoom yeneen ñu war a mën a may chance. respect à. Tidiane nag màggatagul. waaw màggatagul mais des fois nit ñi dañuy wax màgget na màgget na même su màggatagul nañu may sens parce que moo ñu jiitu si làmb lu bëri laa ko commencé supporter mais may may ma sens fi mu toll nii bi muy daan Jaguar koy jéem a baax. bu muy daan maa moom nag dañoo war kenn dafa war a Jaguar moromam. Ah. waaw. léegi ñu bàyyi la nga tàggatoo jox kàddu yu mujj après ñu tëj. waaw sama sama série Awaloum Awa Sagna Euh, maa ngi koy nuyu ndeysaan di ko masaw coono tamit ci ba euh, ngénte buñ ñu jógee nii ak coono bi affaire yooyu noonu jëkkër moo nekk nii vraiment xew bi barki démb la woon vraiment kontaan naa ci trop vraiment di ñaanal liir bi yàlla na ko fi yàlla bàyyi lu waaw lu waaw lu fekkee lu bëri waaw ba teral ñëw si barki Seydina Mohamed di ñaanal sama yaay Awa ja yàlla na suuf oyof si kawam jabaru président NGB bi sama yaay bu baax la bu baaxoon la si man maa ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana di nuyu sama grand Médoune mu nga xamante ne moo ñu tëjil fii ah, di nuyu waa NGB bi yëpp bàyyiwuma kenn sama yaay sama papa ñoom Famata Aïcha Aliou Mohamed Kadiatu depuis Koutal maa leen di nuyu waaw di nuyu waa Kër Madiabel Koylal Moussa Boy Thiamène Bambara Casamance ah, Waalo ma kenn daal la laa maram njawara alkaati <laughs> gars yi daal ma kenn waaw di bégg ñëpp grand Ndiogu grand dama bëgg nga jàppale ma bu baax a baax a baax Ndiogu ambassade France dama bëgg nga jàppale ma waaw yaa ngi ubbi gémmiñ bi nga ne ma yaay sama mbër kon donc sa mbër mu ngi nii dama bëgg tàllal naa sama loxo nga jàppale ma bu baax a baax a baax a baax maa ngi nuyu Abdou depuis euh, Italie maa ngi koy nuyu sama nijaay Modou Fall maa ngi koy nuyu waaw ma kenn waa diaspora bi waa Brésil képp kuy bëggee boo Dakar rek waaw laa cadar baa ngi lay bëggee jaajëf. gis ngeen ni lay demee ci wasaare làmb xamuñ mbër mu ndaw mbër mu mag képp koo xamante am na licence nekk ci arène bi rek dina la ñëw seet si waxtaan ak yow ci lu jëm ci làmb di leen jox dig daje ba beneen yoon kàggu kontaan ci yow jaajëf.